amna une grande démocratie parce que comme aux États-Unis et dans beaucoup de pays les juges sont libres sont indépendants te suñuy juger dañuy juger ki li nga xamné mom la leen propre conscience may ndax man nga def tay dara benen juge nous ko ñu bëri yaakaaroon né lolu États-Unis d'Amérique rek rek la mëna am am juge yo xamné dañuy wax lo xamné du neex euh, ñi nga xamné mom moy mom moy état ndax gisoon nga euh, ATEP bi ñu amoon ci première instance mu nekkone nekkoon euh Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang mm-hmm. juge bi malgré li nga xamné code pénal wax nako néna nee bo xamné dafa impliquer un ministre kenn warte tej ki nga xamné mom moko sékk ak mom alors moins de 4 mois ñu gis né malgré ça juge bi tëjoon à Sonko deux mois ak sursis té ko permettre mu échapper ci li nga si élection donc gaay yi jubilé comme aujourd'hui ñi nek aussi mettre le ko parce que gis nañ ak li droit ñu eu ñëw Chor, le juge de quoi Sabassi je pense. Sabassi Fay. Sabassi Fay. Nous avons, di jox ndam Ousmane Sonko nous réintégré à nouveau qui, li nga sur les listes électorales. Mhm. donc malgré l'opposition faite par Ousmane Sonko à la justice entrave à la bonne marche de la justice parce que. yàgg nañ ko wax ne ko kaay nga dem ñu àtte la mu bañ ne kenn du ko àtte ñu gis déboires yi mu dem ba affaire boo xam ne affaire la woon entre ñaari nit moom ak Adji Sarr ñu jiiñoon ko loolu muy muy viole bi mm-hmm. alors mu dem ne moom affaire bi daal président de la république moom moo ko fomenté donc def affaire bi une affaire politique ñu ñu ne déetewaay mu dem def bi une affaire entre état ak mom parce que khasna ngagnina les juges titel na juge ba juge désisté waxna juge ne ko bu nguur yow yow bes ma am ñaari waxtu ñu gis li ci xew non juge. Euh, biñ koy wo ci affaire aji aji bi juge d'instruction bi mhm. wax na ko lolu journaux yep ñëpp wax nañ ko ko mu ne ko man su ngeen ma arrêté 2 heures temps do def ci biti donc wax na yu bari yo xam dafa gàkkal juge ba ñi ma andal ñep gàkkal juge yàlla def sabasi si def lolu donc ñu nangul koko Sénégalais yi nangul koko man man intervenir naa à plusieurs reprises ne juge man d'accord na né mom mu juger ak sa propre conscience. Mhm. le conscience am may mu joxe ko mais su ëllëgee ce que nous avons nañ ko bàyyi lu conscience am mu indi ko euh, cour suprême cassé affaire ba gars yi mer am nañu mer ñu bëri donc mu beaucoup ko Dakar euh, ci grande instance bu Dakar grande instance de Dakar qui di confirmer le juge Sabassi waxoon donc cela veut dire que alors Sénégal c'est une grande démocratie une grande démocratie moy heure bu ñu joxee maires, que les mères, Ousmane Sonko bi gars droit mère ñu mère, état amna droit ñu mère ñu mère, mais c'est pas encore une victoire parce que dans une affaire en justice une affaire commence au moment où xamné ñu convoqué mais finit définitivement au moment où dañ dem cour dem euh, euh, suprême mu joxé

c'est une avancée démocratique au Sénégal maintenant ce le il y benen étape Moy cour suprême dégg vous sax avocat yi vous Ousmane Sonko yi état dal vous vous wala vous mais justice da jusqu'au bout comme nangul dit, leen ñoom lépp vous xam les euh, yoon may ko mmh. nangul aussi état mu lépp lu ko yoon may mu jox ko d'autant plus que ñoo def affaire bi affaire état. comme dossier bi c'est pas encore fini lool motax euh, avocat yu état bi rawatina agent judiciaire de l'état euh, amal pouvoir bi nga xamantene mom la euh, mom la dugal démb ci décision bi nga xamantene mo moo ci tribunal. waaw loolu je crois que c'est le ce son droit le plus absolu parce que c'est une partie maintenant. Mhm. état bi est partie ndax état bi mom mo dem mu mu yobou ko fofu kon nagn ko nangul ne état amna droit def ko léegi nag. kon nañ amul ñaan nañ bàyyee amul di wa wax pour nga pour ñu état ñëg di bàyyi dans tous les moom du ñu bàyyi ñoom dañuy dem ba jusqu'au bout su boobaa na ñëpp am ngor rek ñëpp respecter justice fu fekkee ne ñoom ñoo gañe na leen état jox ne ñoo gañe su fekkee ne ñoom ga gañe wuñu ñoom tam nañu nangu rek ne comme kuy gañe moom tey mën ngaa per mhm. waaw d'accord très bien comme yéen yoon may na leen ngeen amal li ñuy duppee euh, pourvoi. en cassation est-ce que tamit euh, comme ni ñu koy waxee article L 47 bi nga xamante mo moo ci code électoral euh, bu élection yi lu mu wax tamit ci mbir mi manam bu fekkente décision bi dañ ko wara jëfé ci sasi lan mo tax bobu ba mënu ñu jëfé décision bi. non jëfé premier jour en matière de justice. mais article L 47 loolu lay wax waaw damay ñëw rek en en matière de justice il faut d'abord nga am jugement bi faut d'abord nga am gros jugement bi. Mhm. Wara ko ñu bind ko ba paré euh, teg afficher affiché ko publier ko ñepp xamné li la yow mi nga xamné ya ci am droit nga door mëna prétendre à ces droits là. Mm-hmm. donc la première chose moy ñu bind ko ñu teg ko mu disponible donc au moment où l'on parle disponible gul yo xam nga disponible mi gul mm-hmm. donc ñu ko jëfé deuxièmement amna ben communiqué bo xamné je crois que c'était au mois de d'octobre le ko état bi lañ ko génne won donc. Nous, euh, dans la dans la procédure dans la procédure bi nga alors moi mooy daw heure bon xamee ne euh, euh, décision de justice décision de justice boobu comme bu Ziguinchor bi c'est le ministre de la justice qui moo notifier le ministre chargé des élections c'est le code électoral qui le dit Ce qui c'est, les radiations qui ont eu lieu en matière euh, qui ont eu lieu c'est le ministre de la justice Momo Bindik bind a envoyé que le ministère des élections dont Ousmane Sonko sont radiés et c'est sur cette base là que le ministère des élections a saisi DAF Neko ko radiel malin. donc la même procédure mooy imposer waat au ministre de la justice heure bu ko pour exécuter ko mu bindat, mu jaaraat femme jaaroon mu ñëw mu exécuter leen ko mais dans un passage yu bruit, yoo xam dans le code qui sont qui sont restés flou. Mm-hmm. yoo xam ramené yoo a ramené qui sont qui sont restés flou parce que euh, n'y a pas de délai c'est-à-dire amul benn délai boo xam ne moom ci am ne da ngay 24 heures da ngay 72 heures amul délai. donc l'administration va marcher tu sais comme elle est donc la la ça ça, ça c'est important. amul amul délai ba paré, amna benen affaire bo xam ici. tam mi ngi ci bo xamné xamna né ñu ko. mais code électoral bi chaque année il faut arrêter une période de révision des listes électorales les listes électorales sont révisées donc de date à telle date chaque année on nga da mhm. donc même la révision exceptionnelle fait l'objet d'un décret à d'arrêté qui organiser donc ce fait qu'il y a une ligue, koy mhm. là est-ce que c'est une intégration immédiate parce que est intégré sur les listes électorales ou bien est-ce que c'est une intégration qui va attendre alors l'ouverture pour session donc de d'inscription et de radiation sur les listes électorales ensuite il y a une période aussi qui est définie par le code électoral mm-hmm. moi la période de parrainage on a dit période de parrainage mm-hmm. allez au 11 la période de collecte au 11 décembre c'est la période de dépôt qui est une deuxième période qui va du 11 jusqu'au 26 mais collecte on l'a organisé Il y a un système de contrôle des collectes Il y a également l'administration qui administration sur le terrain cette période là va du 28 septembre au 11 et elle est close donc loi aussi aussi loi bi le lu donc la précision yu bonne, yoo xam ne mais tout ce qu'on sait moi, est les clauses est-ce que Ousmane Sonko a le droit de droit euh, collecter donc ay parrainage au-delà du 11 A le droit de dépôt mais est-ce qu'il a le droit de collecter bon beneen affaire ici. les délais aussi sont très courts en matière de recours donc ils ont 10 jours pour faire recours est-ce que nous... xam nga Ousmane Sonko dañoo def di dilatoire soo xoolee tous les procès yi nga xam ne avocat Ousmane Sonko yi def nañ ci recours dañu xaar ba dernier jour bi ñu def recours donc état bi comme su ko neexee usé loolu toog ba dernier jour su affaire bi génnee mu def mu def recours donc euh, day fekk noonu léegi dépôt bi dépôt bi jot. Vous faites ne loolu état bi def nako amna droit def ko baye ba au dernier moment mu def recours kon mun nañ japp ne président Ousmane Sonko du don candidat. mun nañ japp ne su ne recours def au dernier lieu. Mm. la question ne sera pas réglée la question ne sera pas réglée. Mm-hmm. au moment du dépôt des candidatures. donc légui légui loi bi constitution mom moy wax mom lan la ci wax mais ce qui est certain moy à cette date la question ne sera pas réglée. Mm-hmm.

alors suñ démé na jël suñu suñu suñu euh, euh, suñu parrain suñu parrainage loolu ngay dégg. Mhm. ah. waaw gis nañu ci côté demba dégg nañ ko ñenn ci ay avocat am nañu euh, fu mu nekk ni ciow li jeex état bi na dem tok té noppalu kon gis nañu ci diggante bi sen communication xawna changer changé. waaw mais loolu d'abord affaire yi dafa changer la force mo koy may lu mu am. foo la jëkk def erreur parce qu'il a cru que il pouvait

loolu dañ koy ñëw déloger ko le jeu est toujours là-bas kenn waxootu ko dara parce que Sénégal Sénégalais, à force ngay dem ñi gis un sacrifice pour xamné jaru ko les grandes démocraties en France aux États-Unis en Italie ak yooyu yëpp lii amu fa télé télé pays marche mhm. ils se sont dit que li alors nañu sétane yoon ñom sax dañu mujj jëblu ci yoon parce que ils n'ont plus cette force de frappe la rue amatu ko donc y y a des changements sur tous les plans c'est un discours aussi des changer. Fim tol toll na état tok. pourquoi état tok? Yo ngay bëreeg nit nga diko dor, diko di ko gifler ne ko yow bul fayu loolu foko ko mos a parce que c'est la constitution du Sénégal ak le code électoral ño jox état ño dox état mu am droit mais répliquer mu am droit yóbbu affaire bi def recours. Mhm. donc kon mënuñu ko né na tok mom heure bu ngeen def recours def recours bari na état bi na tok bu mu def recours mais loolu loolu loolu wax ju yaqula kon ci côté boobu mën nañ jàpp ne état bi tamit jouer avec le temps. am le droit jouer avec le temps c'est-à-dire que xam nga en marqué le droit. dem ba mu sës en droit on dit peu c'est-à-dire que l'état peut. On mhm. ah, du ñu wax ne devoiram l'état peut état mën na dem def recours état peut na def recours mais si tu choisis l'état comme adversaire numéro un nga ne ko danaa la détruire wala nga détruire ma. mais yow itam bul xaar état may la dara donc Ousmane Sonko c'est ça Ousmane Sonko moo yóbbu affaire bi fii su fekkoon da doon maslaa ak état su fekkoon dafa doon jaar ci yoon di dem ci justice di ñëw dana am sax ci justice bi ak ay nit ñoo xam ne sénégalais lañ ñu jóg ñoo xam dañu xam yoon ñu jàppale ko si. Mhm. mais soo nee état yaay sama ennemi dama je vais te mais état bi nu ma def détruire dafa lay dafa lay moo tax Ousmane Sonko sama gis-gis man naa aucune chance pour mu génn ci affaire bi. parce que ce qui est de, mooy détruire état te état du nangu détruire donc man sama gis-gis moom mooy amul aucune chance pour me génn ci ci affaire bi amul. D'accord. accord D'accord. d' euh, mbir mi yëpp jàppoo aussi Ousmane Sonko wala sax ñooñu Ousmane Sonko yi seeni avocat dañoo dem ba pousse état pousse ko ba ci mur bi Manam fu mu ni l'état est dos au mur. non état n'est pas dos au mur ñom ñoo nek dos au mur xam nga le temps où l'État utilisait la justice mm. où Adji Sarr croyait fermement à la justice Ousmane Sonko croyait fermement à la rue c'est ça le problème donc Ousmane Sonko dem na ba li mu xalaat xam ne lii mënatul dem mu mu mu toog baisser les bras bàyyi lolu donc fait un retour donc c'est Ousmane Sonko qui est deux au mur qui est obligé maintenant di déglu lan la juge doit lan la juge doit mais mosu ko donc c'est pas l'état qui est dos au mur mais c'est Ousmane Sonko qui est dos au mur parce que yon ba mu Demna dem na ba yoon boobu xam ne ci am réussite. ci bi Ousmane Sonko sax bi dëkk bi lakk près euh, peut-être leneen am na ci dëkk bi le régime changé ah gars yi perte tout euh, dëkk bi Lak, comme ce qui s'est passé en République centrafricaine ñu dem ba mu tasaaroo wala li ñu ci ay Mali gars yi dem xeex ci rue bi yoon. ba ay militaire ak ñeneen jël pouvoir bi donc tout ça pouvaient arriver, les djihadistes pourraient arriver au Sénégal. On a vu un bus qui a été brûlé, boo xam ne cocktail molotov gis nañ ñoo xam ne djihadiste boo xam ne ñu ngi koy jàppee ci frontière bi koo xam il était euh, au Nigeria donc ñoom ils prêt à venir au Sénégal donc bi mu xamee ne loolu yëpp dematul mu wàññeeku wékku ci justice bu mu wax ne l' état est état dos au mur état fa mu mu nga fa l' état pas bougé. parce que l' option bi am mooy faire face aux troubles à l'ordre public, faire face à l'insurrection donc faire face ak ñi nga xam ne dañ bëgg a tasaare réew mi dañ bëgg a lakk réew dem ba lakk ambulance yi état loolu boobu la am donc soo dëkkee état état xeex ak yow c'est ça dëkk na état état xeex nag moom fi toll état xoj na ko bon xaw ma dana ci génn wala du ci mais on verra ce que ça va donner. d'accord euh, dañuy dégg boobu ba léegi ci communication bi nga le gouvernement.